asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi safoo si 313 digital le site qui vous donne des informations fiables et net ñu ngi leen di waat bu baax a baax di leen wax ne leen dal leen ak jàmm ci lu gën a fas dañ koy daal di doo rek ak le journaliste Babacar Fall nekk journaliste nekk foofu noonu euh, ca RFM moom nag Babacar Fall daal dinay wax quatre vérités om ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall ginnaaw émission bi nga xam ne amaloon na ko foofu noonu ca RFM ca émission boobu noonu daal koy dippee euh, yoon wi moom nag Babacar Ababacar Fall mi ngi attaqué euh, bu baax a baax ki nga xam ne moom mooy euh, Macky Sall ginnaaw sorti woom boobu le euh, samedi passé moom nag Babacar la nga xam ne mi ngi koy métti bu baax a baax mooy que. situation euh, réew mi euh, jamono ji na nga xam ne euh, noonu la demee waaye ni nga xam président Macky Sall noonu la ko daal di yombale maanaam yombal bi nga xam ne yombale na ko situation dëkk bi daf ko daal di metti lool lool waaye tamit ak tamit niveau de vie bi nga xam ne président Macky Sall mi ngi wax que ne mi ngi amélioré wu bu baax a baax Babacar mbir mi tamit daf koo daal di metti ndax mi ngi mi ngi wax que ne dafa mel ni que ne président moom xamul lan moo xew. Euh, ci euh, dëkk bi ndax bu waxee que ne euh, niveau de vie de la population s'est amélioré maanaam bu yëkkatee yooyu kàddu di ko wax dafa jàpp ne président Macky Sall xamul lan moo xew actuellement ci réew mi ba tax mu daal di yëkkati yooyu les kàddu waaye tamit ku gedd sa yaay aaye yooyu tamit yooyu kàddu yi nga xam président yëkkati woon na ko samedi passé foofu noonu ca RFM daal dinay metti le journaliste Babacar Fall ndax mi ngi wax que ne am na yenn propos yi nga xam xam ne en tant que euh, président en tant que chef euh, suprême euh, war a woon yëkkati yooyu les kàddu parce que jàpp ne ne dafa terre à de trop que xaaruñu woon itamit mu daal di wax loolu le ndax jaloog bi nga xam ne woote na ko te opposition bi demuñu wuy ji ko ca boobi la dialogue bi nga xam ne président woote woon na ko moo waral mu ne ku gedd sa yaay ay maanaam ñi nga xam ne ñëwuñu kon ñoom ñoo xam bëgguñu jàmmi réew waaye tam bëgguñu tamit stabilité am ci réew bi moo tax euh, ñëwuñu ca boobile euh, dialogue waaye Babacar Fall yemul foofile euh, daal di yokku ci ne président Macky Sall mi ngi wax que ne détenu politique amul maanaam ñi nga xam ne jamono ji teg nañ leen loxo ba nekk ca prison ba ñooñu nekkuñ ay détenu politique dañoo def li nga xam ne yoon santaane wu ko moo waral ñu daal di leen di arrêté daal di leen di nëbbu jant bi kon nag waruñu leen di leen woowee ay détenu politique loolu di samay kàddu président Macky Sall moo da yooyu le mais ki nga xam moom mooy le journaliste Babacar faal moom nag àndul benn yoon ci euh, li nga xam président wax na ko ba dem na sax ba daal di ko jox exemple ci euh, Bassirou yi fay nekk secretaire général euh, du parti Pastef les Patriotes ndax moom Babacar Fall mu ngi koy wax ne ko Bassirou Diomaye fay dafa daal di publier wax li nga xam ne moom mooy xalaatam ci justice Sénégal rawatina ak tamit ci ñi nga xam ne ñooy magistrat yi ñu daal di koy teg loxo ba jamono ji nekkoon euh, ca prison ba mu nekk tamit euh, ab détenu politique mu nekk exemple bi nga xam ne euh, Babacar Fall daal dina koy jël daal di koy xamale président ne ko bel et bien détenu politique am na yokku ci ne ko wàllum troisième mandat bi nga xam ne jamono ji danga nga téye suspense bi na nga wax ne carrément que ne doo def li nga doo déposé waat sa candidature pour que jàmm mën a am ci réew mi maanaam mu renoncé ci li nga xam moom mooy troisième candidature am mu nekk ay vérité yooyu nga xam ne euh, Babacar Fall euh, daal dina koy yëkkati daal di koy jagleel euh, njiital réew mi di président Macky Sall bu ñu jógee ci loolu li dañuy daal di dem foofu noonu ca Benno Kaffrine gis nañ ne la ginnaaw ki nga xam moo Idrissa Seck ak ba Diattara ak Ali Saleh Diop génn bi nga xam ne génn nañ ko foofu noonu ca Benno Bokk Yaakaar am na ci ñenn ñi nga xam ne tamit ñi ngi waajal jël seeni yoonu bopp i tamit muy ñoom Abdoulaye wilaan nekk porte parole bu Bougane euh, mi ngi wax ne ñoom dañuy daal di génn foofu noonu ca benn Bokk Yaakaar la waral mooy que ñoom kontaan nañu benn yoon euh, ci APR Kaffrine bi nga xam ne euh, Abdoulaye Seydou saw moo ko daal di jiite ñoom kontaan nañu ci benn yoon nax ñoom Abdoulaye Wilane nekk président du conseil départemental de la localité nekk itam porte-parole des socialistes mi ngi wax que ne APR jamono ji dafa daal di dee foofu noonu ca Kaffrine waaye itam mi ngi wax que ne waa APR Kaffrine tamit respecté benn yoon ñi nga xam ne ñoom ñooy seen ay ay alliés waa parti social voilà parti socialiste mi ngi mi ngi noonu nag mu nekk Abdoulaye Wilane daal di wax que ne ñoom respecté wuñ leen euh, benn yoon waaye it tamit euh, mi ngi wax que ne dafa am benn stratégie boo xam ne jamono ji ci leen nekk di ci wéy ba léegi mooy euh, nekk di leen nax seen ay ginnaaw mu nekk mbir moo xam ni moo leen daal di merloo moo war a mu daal di tenir yooyu les propos moom nag Wilane mi ngi xamle que ne responsable socialiste si jamono ji ñi nga xam ne war nañu wax ak ñoom wax nañu ak ñoom ba pare pare nañ ngir génn foofu noonu mooy ca benn bokk yaakaar bu Kaffrine ba waxtaan daal di am maanaam discussion waxtaan bu amee mën na am ñu ñëwaat mais jamono ji euh, jël nañ seen yoonu bopp ba jamono neex ba waxtaan euh, di am euh, seen biir waaye nag moom Abdoulaye Wilane mi ngi xam le que ne ci wàllum li nga moom mooy ci wàllum présidentielle 2024 moom mi ngi xam le que ne jamono ji mënuñoo wax dara ci wàllu ci wàllu ci wàllu présidentielle 2024 ndax amuñu amaguñu candidat boo xam ne euh, PS moo ko daal di taxawal waaye tamit mënuñoo wax itamit ne euh, dinañ jàppale waa Benno Bokk Yaakaar mais lañ ca mën a xam ne daal mooy que mën nañ leen jàppale que mën nañ leen bañ a jàppale mais l' essentiel mooy ko jamono ji ñoom Abdoulaye Wilane maire bu futtu la ñu daal di def ci euh, doxalin bi nga xam ne APR bu Kaffrine mi ngi koy doxe te Abdoulaye Seydou Sow daal di daal di koy jiite foofu noonu ca Kaffrine mais nag waxtaan mën na am seen biir mais ji am seen seen biir euh, APR nag ku nekk rek ma ngay jël sa yoonu bopp ginnaaw ba Idy demee ba Diattara ak Aly Saleh Diop wàpp parti euh, socialiste jamono ji ñoo daal di euh, jël seeni euh, wàll bu ñu jógee ci loolu yi tamit dañuy daal di ñëw ci ba léegi ci wàllu politique la ñuy daal di dessiner nag gis nañ ci wàllu propos maanaam kaddu yi nga xam ne Idrissa Seck yëkkati woon na ko di wax ne moom mooy le chef de l'opposition ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ndiki démb foofu noonu ca Ziguinchor nemmeeku tour bi nga xam ne tàmbali na ko ndiki démb daal dinay adressé ay propos nga xam ne moom mooy Ndamal Kajoor Idriss Seck nekk président euh, du ci réew mi waaye tamit nekk candidat ci élection présidentielle en 2024 moom nag Ousmane Sonko daal dina koy tontu bu baax a baax di ko wax ne moom xuloowul waaye tamit xëccoowul benn yoon euh, chef de l'opposition mais mi ngi koy xamal ne ko bu ko neexee euh, mën na ko jël waaye nag daal dina koy xamal ne ko euh, li nga xam ne ivoiriens yi ñu ngi koy wax ndax Ousmane Sonko mi ngi koy wax ne ko les ivoiriens disent tous les moutons se promènent dans les rues d'Abidjan mais ils n'ont pas le ils n'ont le même prix mu nekk kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko wax na ko maanaam mi ngi koy xamal ne ko xar yi nag dañuy daal di doxantu foofu noonu. ca yoonu euh, maanaam ca koñu Abidjan yi mais nag ñoom ñëpp euh, yamuñu benn prix maanaam ku nekk ak sa prix mi ngi koy xamal ne ko opposition bi yaatu na lool lool lool waaye ku nekk xam nga ko la mën. te ku nekk tamit xam nga ana kan moo nekk euh, chef de l'opposition mais Ousmane Sonko moom yemul ca loolu le mi ngi ñëw kën ne euh, maanaam politiciens yi euh, depuis 1990 wala depuis les années 90 na nga xam ne noonu lañ doon yoree réew mi Ousmane Sonko ma nga naan leen ni ngeen doon ko yoree du lenn lu dul wàllum combine wàllum deal protocole te loolu yëpp tamit dina daal di jeex parce que da ngeen daan deal ci kaw askan wi loolu yëpp nag dafay daal di dakk ba jeex. tàkk euh, bis ni ki tey loolu yëpp daal dinay euh, jeex parce que sénégalais yi yeewu nañ yeewu boo xam ne dootuñ nangooti kenn kenn kenn di leen nax rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon depuis 1960 euh, Ousmane Sonko nag ci la daal di yokk ca kàddu ya nga xam ne yëkkati na ko di ko di ko wax ki nga xam ne moom mooy Idrissa Seck naan ko ku nekk dina xam ana kan mooy euh, le chef de l'opposition maanaam loolu da koy bàyyeeg askanu Sénégal ngir ñoom ñoo mën a xool ba xam ana kan Ousmane Sonko la wala ki nga xam ne moom mooy Idriss Seck kan moo ci euh, le chef de l'opposition mu nekk réponse bi nga xam ne Ousmane Sonko daal dina koy jël daal di koy accordel ki nga xam ne moom mooy Idriss Seck bu ñu jógee ci loolu tamit dañuy daal di ñëw euh, ci wàllum people dañuy daal di ñëw ci ki nga xam ne moom mooy Ameth Thiou nekk ab danseur ci Wally Ballago Seck bokk foofu noonu ca Ramdan waaye tamit ca Faramaren tamit mënuñu ko cee génnee moom nag Ahmed Thiou daal dinay def ab révélation daal dinay génn di wax ci ki nga xam ne moom mooy la golden boy de la musique sénégalaise di Wally Ballago Seck di wax que ne moom Ahmed Thiou nag lam xamle du lenn lu dul kontaanul ci ki nga xam ne moom mooy euh, doomu Papa bi la di Wally Ballago la nga xam ne ak lu waral kontaanul nag moom avancé wu ci euh, de trop mais lam ca xam le daal mooy que kontaanul euh, benn yoon ci Wally Ballago Seck tamit mi ngi xam ne que ne moom euh, yàgg na ak ki nga xam ne moom mooy euh, Papa te lépp lu mu xam rek Papa mook ko ko daal di xamal mais nag mi ngi invité waat Wally ngir mu xoolaat bu baax a baax li nga xam ne moom mooy comportement am ak tamit na nga xam ne noonu lay daal di doxee indiwu ci nag ay détails yu bëri mais daal moom nee na Wally Ballago xam na bu baax a baax a moom li muy wax moom xam na bu baax a baax lu muy wax avancé wu ci nag de trop moo waral euh, mënuñ ci indi ay euh, détails mais aussi moom mi nga xamle que ne euh, génnul benn yoon Ramadane jamono ji mi ngi bokk Ramadane mi am na droit wax que ne kontaanu ci Wally kontaanu ci wàll loolu daal loolu daal la daal di xamle moom Ameth Thiou fii la ñuy daal di wàccee suñu ay kàddu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen joxaat dig dajee ndiki ci kanam ak yeneen i information waaye nag bu leen fàtte di abonné si 313 digital